tàggat yaram dundoon na loolu démb ca département bu Mbàkke gannaaw gala de lutte biñ doon amal ca stade Nelson Mandela bis bu ñu mel nag ñi ko taxawal di kuréel gi ñu wax Mbàkke ca kanam. waa événement bi moom liñ ko doon séndoo macha allah réussir na waaw te ñun li rek moo ñu yite loolu di jéem a créer ay événement yu spectaculaire fii ci Mbàkke waaw parce que ay jeunes lañ am nañ engagement ak détermination pour liggéey suñu gox loolu moo ñu tax jóg. stade ba feesoon dell askan wa wuy woote ba yi la xumbel doon am ci teewaayu ay kilifa yu bari mu amoon nag ñetti drapeau bu njëkk ba di bu Ndeye Salon jigéen gu ràññeeku lool ci fànn gi muy yëngu. naa kontaan ndax Codé day sama góor te bari na ay jigéen Touba mu bàyyi ñëpp tudd ma bi dafa rëy ci man dama kontaan ba mënu maa wax moo tax ma ànd ak samay copine ak samay mbokk ñëw teew ci bis bi. jaral na ma lu raw ñaareelu drapeau ba ñu tuddee ko monsieur le maire bu Mbacké di Abdou Mbacké Ndaw drapeau bu mujj bi di grand combat bi ñu tuddee ko Fallou Diop Madakawo muy fesal mbégteem lool. di dolli di sant yàlla bu baax di am kontante ak mbégte ci population bu département de Mbacké ndax euh, lamb dañu ma ko tudde tey ci turu ma Madakaw ma ànd ak samay naataango ñëw ci ay jeunes yu dynamique nekk ci département bi ñu gëm sport. wax dëgg yàlla di samay nawle bi na amee initiative def làmb tey ji ñu waxoon ma ko nañu dañu gis Madakaw li muy def ci social ak li nga xamante ne si ne mi ngi koy def euh, ci sport. ak leneen loo xam ne mënees na ko faa jàpp mooy ñu bari ñu fa teewoon di sàkku ngir ñu gaawal liggéeyu stade bu bees ba ndax ndaw yi soxla nañ ko. nga xam ne département bi deuxième capitale la parce que bu mooyee Dakar ci population département de Mbacké kenn ëpp ko ay nit département bi en laa la wax ñoom ci benn dige. ci benn infrastructure wàccoo wuñ ceeg ñoom parce que dégg naa bari ki démb am ko ko wax ci ñoom ni teg nañu aw xeer tegu xeer dañ ko soxlaatul parce que juróom-ñaari at mënoo koo nekk cim réew di ñu dig tegu xeer ba léegi parce que fukki saakoy ciment boo ko jëloon mën nga yeteeg réew mépp ay xeer tegu xeer waxuñu ko lu yegg sotti ñu jëfandikoo ko la ñu wax parce que xool stade bi ni mel nii wax dëgg fa yàlla sa yaram war naa a daw xam ne nit ñi soxla ko kon boog nañu jàppale bu baax a baax a baax monsieur le maire bu Mbàkke ak bu Tuubaa yëpp war nañ ñoo xam ne làmba ji moom soxla na ndimbal kon boog lu ci waay mën def xam ne sa bopp rek nga ko ay seen lan Mbàkke euh, mérité na am stade boo xamante ni lu mel nii war nañ ko di fi def parce que nag euh, teranga rek moo fi am te làmb dafa nekk loo xamante ni suñ cosaan a jéggaane wuñ ko àggal stade bële bu bees bi ngir ndawi dëkk bi gën cee mën a bénéficié wu ndax département Mbàkke rek mooy seul euh, dëkk bi nga xamante ne mën nañ fay construire benn stade ndax ku ne xam ne ne Touba mënuñ ko fa construire te boo xoolee ndawi Touba yi ñu bëgg sport lañu muy football muy euh, basket muy rawatina lamb bii nii ñu waroon jàppale ndaw ñi. mu nekkoon lamb ju neex lool te bari woon ambiance lool ndaw yi nag di séentu yeneen xumbeel.